ata anoma xejate yere atomang e baba se

ayca salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki internet Lutte TV gannaaw bañ leen nuyoo rek leen ziar di am mbégte rek ak contentement di saa programme Lutte TV tey nag ñu ngi fii Dionewar dëkku Siteu fii la Siteu fekk baax fii lañ ko menee ba mu mën a yegg jàmm ba doon li mu a doon war a bëri nga xamante ne moom moo di la combat royal diggante ak Modou Lo nee naa leen nag bés la incha allah def lu mës a def mu ne leen ne xaatama xaat tey di ngeen gis fecc di ngeen gis wëy di ngeen gis ambiance di ngeen gis cosaan fii si Dionewar ak Lutte TV dara du leen raw Sara Sëriñ ba yàlla jël ko. dëgg la waaye gis nañ ko di investir si si jeunes na am solo nekk aussi en partenariat kon nag ku bëgg produit de qualité demal nga am na bu nekk fi nga xamante ni moom mooy olympique club lépp loo ko si matériel ma bàyyi rek nga nuyu sa waa ji. Siteu ñoo ngi lay waaw moom mi ma war a nuyu ci séeréer. waaw nee na balaa nga ko nuyu ci yow nga nuyu ko si séeréer. la séeréer ma soog Cité Yaare jam jam soom nam yaarne ke et ka lay te ref na jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul simna Jongwara simna Ñojoor simna Fayla simna Amunde simna Basul esra esra caade ke fop mi simna nu ha leer ma rek mi milliyanuga o ɓiru noon dogoru noon damnum he simnanum wawi moɗin foof mais wawamole ga an ñoƴor bo foyago foof mi simnaɗen guiɗma o siriñe sirimbade arkuran guiɗma jamba guel fone anlaga denude baman sigam rek ko ñamo mbas guiɗmam jamba guel a baa noon mbaw yela baax wa jamba guel pugar kusum nannoa hargao jammaken um ga o ley o njukola lewna lamtama pere ambroise sar sax te a wara waro leye numtogidam no foge yam leye ay xadam no foge sax gamo kay ko mo'u mais xam waralu o leye numtogidam no fogo fo xan ga'o no fogo ba tax o lat o ñisolewo litala la yaakaar bidu yooyu waaye xam nga dafa am ñi naan kii dañ koo xabtal bidon la dama koy bës diggante ah. waaw xabtal waaw ne déggoo li ma la si man la nekk man bu ma amee lu may tiit si gan gi ah. parce que alxuraan samay mbokk yëpp laay woo comme nii ne leen bàyyi naa eh jëf jël maa ci mën yow eh, waaw fallu eh final mi waaw den fuuf i njëf final mi waaw den fuuf kim gan tiida ar isi dia ay mbir no maa fi taa si li ma lay laaj mooy sa diggante njaago yi ah sa digganteeg waa jàmm gën ñu bàyyi lépp tëj kër yëpp tëj bunt yëpp ñu ñëw fii sa digganteeg njaaroy ak sa digganteeg waa jàmm gën lan la si waaw li may wax si diggante waa jàmm waa jàmm aw awuma seen fay parce que alxuraan man hôpital Diamaguène laa juddoo si hôpital bi laa juddoo dégg ma sama papa nekk séeréer juddoo ci dëkk bi yaroo si dëkk bi sama yaay juddoo fooy yaroo fii dégg jàmm gën yàlla moo ma xiir jàmm gën rek nar ma defal bidéew rek wàcce ma seen biir ñëw ñu gën ma fuuf mosuma si gën kenn yaay ma si kenn papa mais boo yëpp ñoo jël benn kàddu ne ma Siteu jiitu loo wax boo ne ñuul la ñu ne kub boo weex na ñu ne tàll yow Fallou man loolu xam la la ma def loolu la ma def loolu lan la ma ñëw ma ñëw Siteu lan la loolu lan la la njàmbaar taalibe wàcce sam bopp man dama doon génn fu ne laa doon dem mais na dama ruus sax génn man at ba dellu si damay tëju dégg ma ma nekk seen biir nekk góor yàlla yàlla may ma lépp jox ma lépp jox ma lépp lépp la ma jox yàlla mais ngalawaay ba ma bewul man ba ma leen di déglu ñu ma waxee dafa lii ma ne loolu laay def fuñ ma nee si te doo dugg fii ma ne leen waaw te mu neex ma mu naqari kan loolu moo ma indi fii mbër da ngay am gétt ñii ñoo ma def eh eh eh, eh, eh. dama xamal ne man bu ma gisul kenn bu ma gisul kenn damaa ñeme dégg nga baat bu ma gisul kenn man damaa ñeme gis ñii ma ñëw mbooloo ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw li may tëjee ma ñëw xamal xamal la laay tëjee maa ngi tëj maa maa ngi tëjee sant ñi nga xamante ne mooy écurie Lamsar di sant sama nijaay yaaya baasul nee na yéen ko yaaya baasul waaw lu baax la ñuy bokk kooku dafa gore gën kooku ku ko féetale sa bopp kese yi nax na sa bopp Yékini ah. amuñu fayam sama nijaay la mais nag beneen bi may wax mooy ah. Ikri Lamsar ah. maa ngi leen di sant Maxime Mbargane kii dafa gore parce que Mame Serra Fall di sant prési Père Cheikh Niang mais Maxime bii laa bëgg a wax tuuti kii le papa de Tarkinda kii Tidiane Faye maa ngi koy sant mais Maxime yi damaa bëgg a wax si moom lu ndaw mm-hmm. kii entraînement da doon jeex mën a ba père may jox deux minutes boo yëpp dañuy naan ma Siteu yow moom doo rus dara man leen su ma amee damay fay bor bi dégg yàlla dimbale ma ndeysaan yow bi ma yàlla joxee musuma xalaat ne dinaa la bàyyi wala dinaa xool li nga am ma koy dog kii 10 pour cent yi am si man bu doon ay milliards moom lay am dégg kii moo baax moo gore parce que alxuraan ba pare mu woowaat ma si néeg nee ma gis nga sa nijaay lu la wax yëg ni ma waaw mu ne ma dama bëgg nga dellu say mbokk te yow baay man ba ma delloo samay mbokk ba léegi man rëccu bu ma ko ba may ñëw fii am na ñoo xam ne xam lañ ma doon wax boo demee sa mbok ci ngay gën a yàqoo barke alxuraan mën a leen kon ci laay yàqoo man am wala ñun jom waar eh man dama am bëgg lu baax lu ma am xaalis bu bari bu ma am muy indi ko jom waar jom waar rek la am jom waar rek la am bëgg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 waaw mais yàlla na ko yàlla yërëm di bokk ak ñëpp naqar bi di wax ne gaane bu leen am loo leen di xalaat dimanche sañse leen sinon violence ngay ñëw si des man maa koy jooy benn jooy e roi des arènes bu dee dee ñi bi jaamagan ma jël ba bi faatu dama koy def guddi guddi jaamagan xëy suba si ñëw jongwaar wa salaam sant naa jëm waar ñëpp di sant waa Daaru Salaam lu waay wax rek am lu des journaliste maa leen di sant gan yi fi nekk ñëpp nañ dal jàmm waaw